asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Serigne Abou na nga def ah gars yi de ñu ngi ci xibaar yi de ñu ngi ci xibaar yi riche Ukraine yi di wax de ah jàmbaar lañ de indi nañ lépp waye daal xam naa ne des na de des na de ndax pourtant de jël nañ décision plein ba ñu ngi entraîné ci dañoo waxoon ne sax entrainement bi dañ koy dañuy dugg ba biir Ukraine ñu entraîné ci côté boo xam ne guerre amu fa. mais ñu ne loolu bu ñu ko defee kay dañuy guerre yi rek ndax kon bu ñu ko defee bu ñu jógee foofu dañuy entraînement waaj danañu bombardé te kon dañuy guerre yi nañ jël rek dem bu ñu dee entraîné daal nañu entraîné côté Pologne côté yooyu waaye bu fekkee nag dañuy dugg biir biir biir biir biir Ukraine moom mooy dañuy xeex bu ñu fa duggee naan dañuy entraînement waaj dana leen bombardé loolu moom bu luñ ci wax ah gars yi daal ñu ngi waajal geer moom chinois yi nag defoon nañ seen déclaration ñoom nee na ñu ngi ci wetu tey ak suba ak gannaaw suba duñu bàyyi riche mukk nit ñu dal ci kawam ah, nag daanaka mat nañ deux milliards xam naa ne Chine ak riche ak moom ak Iran luñ ci yokk guerre bu métti métti métti bu métti lay doon ndax ah, nit ñi liñ dul settantal otaan dañ ko ragal te liñ dul settantal mooy otaan moo doon xeex ak Afghanistan otaan gépp doon xeex ak Afghanistan taxul mu sotti otaan ñoo doon xeex Saddam Hussein moom kon te sax Saddam Hussein du otaan rek a xeex moom Saddam Hussein ba ñu xeex moom otaan ci la bokkoon alamul islamique yëpp ci la bokkoon ba mu mooy Syrie ñëpp a doon xeex moom te xoolal li mu résisté li bu fekkonte ni xiifa luñ ko embargo wuñ ko xool li mu résisté ñu doro man ci moom dara kon nag xeexu xeex boo xam ne bii Russie ak Chine ak Corée du Nord ak Iran moom ña ngi ca biir ba noppi ah te boo gisee ñu jàpp Imran xaan tëj ko itam Imran Khan te caa naroon na bokk. américains nag dañoo am doole ci armée armée bu Pakistan looloo tax jàpp Imran Khan tëj ko bu nëgg ni moom Imran Khan ci raf naroon a bokk amul sax lu ñuy wax waaw ah, te moom it boromi boom boromi nucléaire la waaye xam naa ne daal bu ñu amee jot daal dañ leen indil benn spécial xibaar boo xam ne lii rëcc yëpp danañ ko waxtaane bu soobee yàlla